non amul problème xam nga boo seetloo Idrissa dafa am lu mu bëgg mooy def Idrissa dafa bëgg a sarxe Macky Macky bëgg a sarxe Idrissa waaw loolu la demee kenn ku nekk da ngaa bëgg a muuroo sa morom Macky Sall dafa wax ne day def benn euh, benn déclaration important mooy jour le vingt cinq mars bi mu ne bi mu ne day déclarer rek deux heures de temps après nga gis Idriss seek na day déclarer Macky daal di ne ko day bëgg bu Macky nee damay nekk candidat midi une mu ne ko bàyyi naa la su ko defee loolu cause bàyyi Idriss Seck day nekk cause troisième mandat mais du ba du dugg di génn Macky Sall gis na Idriss nee na day laaj day day wax rek mu daal di jekk jékki ne bàyyi naa ko Idi timit daan ne bàyyi naa ko waaw léegi nag Macky day war wër loo Idi tamit day wër-wër loo ñoom ñaar mag kenn ku ne da ngaa bëgg a sa morom waaw fii ne Macky mi ngi wër-wër pour wax damay def troisième mandat di wiiree ko wër-wër loo Idi tamit day wiiree ko rek. waaw saa del xool saa bu Sall ne damay def ku mel ne Youssou Ndour ku mel ne ñeneen ak ñeneen ñu ngi taxaw daas fanaan dañ koy sarxe moom waaw léegi nag li may wax mooy ànd ak Macky Sall daanu moom dem laaj am un virgule zéro pour cent askan wi jox la ko wala nga dem amoo parrainage nga ñu xam ne dañoo amul parrainage moo gën nga ànd maki daanu te nguuru Macky Sall day jeex waaw Macky moom wax naa ko waxatinaa ko damaa woor maa ngi lay seedal ci yàlla Macky Sall 2024 bii la 25 février du ko romb di nekk boor ci réew mi foofu la nguuram yem léegi nag man waxoon naa ko bu yàgg ba giñ ci maa ngi koy jéggalu sax ndax ab jullit am na yoo xam ne wax ko di ko giñ baaxul waaye dama bëggoon mu gëm ma dama bëggoon mu gëm ma moo tax ma giñal ko ko parce que dama ko ne woon boo ci rafetee dangay ngay wàcc te boo ci ñaawee da ngay wàcc te yaakaar naa itam yàgguma ci àdduna yàgguma ci caméra yeeg télé yi waaye benn bis bu ma mas a toog maanaam wax loo xam ne nii ci bakkan laa ko teg wala ñu wax ma wax loo xam ne da ngay dem ba àgg ca réalité ba ne lii baara waxoon ak nam demee bokkut musta am kon yaakaar naa war na maa mën a gëm moom war na maa mën a gëm ya du ma du ma yàlla du ma yonant du ma dara mm-hmm. waaye nag do dongab daara laa boo xam ne ci alxuraan ji laa nekk léeg-léeg ma xurxural xam dara ci yëfi yàlla te li may xor-xoral yàllaa yàlla ma ci suturaal su ma ko àddoo na ma ko àddoo woon buy ñëw ñëpp danañ xam ne lii laa waxee woon naa ko nii mille Sall 2024 élection yi bu ñëwee dina moom bu timis jotee du reer bu ci bu bokkee ci élection yi laa ko wax bu timis jotee du reer te dina campagne campagne boo xam ne dina ci tiit tiitaange joo xam ne saa buy nelaw bu yeewoo day wàññi baaraam yi ndax yàkkamte campagne bi jeex ba mu noppalu ndax fitna ju dul jeex moo ciy am hmm. ay oto yuy tàkk ay nit ñuy daw di daanu di dee ay mitin yu toj moom ci boppam boo moytuwul dina ci am ay jafe-jafe yoo xam ne kenn du la ko mën a nettali moo ngi ñu ko wër ñëpp billaahi lasi laa ilaaha illaa huwa yàlla bu ma wax dëgg nag ndax yàlla na xelam dellu si mu ne teg naa sama candidature ñëw leen ñu def si élection yu normal amado Ba ñëwal wala Aly Ngouille ñëwal nekkal ma fii ñu dem élection waaye bu forcé bokk billaahi fitna joo mës ta gis ci Sénégal dañ ko gis ci diiru campagne bi te fitna yëpp lu ci ëpp ci kawam lay daal moom te yaa ngi fi maa ngi fi moom mi ngi fi te nag loolu maanaam bu fekkonte ne moom bu jaayee ngorom weddi doom indi fitna ci réew mi day falu man ngaa wax ne fal jaral na ko ko waaye bu jaayee ngorom weddi kàddoom indi fitna ci réew mi di ko tax a falu day daanu ñii di ko topp yi coow it ñëpp leen dong la leen yàlla nar a mooy jël seen xaalis bi daf koy sarax jënd ci essence toog ci ceeb dem campagne lañ lekk lañ sàccoon ba denc ko ñu séddalewaat ko nit ñi ba noppi daanoon nag delluwaat ci ndóol loolu dong leen nar a def am na jigéen joo xam ne ab lay waat la doon àndal day toog ba yàgg mu mu seetaan télé ba yàgg muy ree ma ne ko looy ree mu ne ma ñii la la ma daloo la leen dal ma ne ko mu ne ma damaa damaa ke keroog ba yàgg ma ne sama 30 millions yi ma jënde woon nag di ko sarxe bi Ablaye Wade di laaj deuxième troisième mandat ma jotaatoon ci 30 millions yi akay baax ma ne ko yow noo jëlee mën a jëlee 30 millions ne ma non damay def buñ ne ma sarxee saraxeel juróomi nag au lieu ma wàññi sax damay jël wàññi njëgu fukki nag joxe ngir xër rek ma ne ko léegi lu tax xalaatoo woon ne lii mu ne ma non dama naan suñ gañee rek ma ma kii ko suñ gañee rek affaire dama koy amaat ci benn weer garaawut nee na daanaka bi mu toogee ba calcul aw nag nag ñii rek li mu ci jënd di ko sarxe mën na 30 nag 30 million laa wax plus de ay rendi nag fii rendil nag xeb la sàngam defal lii defal lii nee na mu topp ci tey mi ngi nii oto bu mu dawal amu ko ndax lam amoon lépp da koo jël def ko ci troisième mandat bi ba noppi amu ko billaay nag looloo leen nar a dal mooy nit ñi weddi leen seen personalité ba seen bàyyi jëmbatoon ci ñoom keroog ba ñu lay ngénte di ko tifli ci sa nopp nga duggaale ko école jàngaale ko école takke ko jabar yare ko say doom liggéeyaale ko ba fii personnalité boobu la yàlla nar a rocc ci ñoom ndax dangay xool ko ñoom ñëpp kenn ku ci ne am na doom joo xam ne lu mu néew néew ëpp na 30 ans ñi mag ñëpp am nañ doom ju am bag Hmm? am nañ ko man naa jërul may tuddi tur waaye xam nga ne yow Macky Sall Amadou Sall donc donc xam nga ne am na fanweeri at xam ne dëgg ak fen ñoom ñëpp seen doom yaa ngi toog nii seen baay ci télé seen seen baay ci télé bi di gis seen baay ci TikTok bi ko gis ci Facebook bi xam ne saa baay waxoon lii saa baay daa saa baay day fen te da fen moom kenn mënu koo nëbbu dégg nga kenn ku nekk da nga xam ne sa baay moo waxoon nangam dat sangam sa sama bàyyi la mu waxoon ma ngi koy weddi te daa daa bëgg bakkanam bi dong ak bëgg a noosu tax saa di ko weddi loolu nag ci àdduna lu ko jar dafa amul te bu fekkoon ni ma la ko waxee buñ ci ñaawee ñoom def lépp buñ paree dañuy téye nguur gi toog di nguuru nga mën ne da leen koo jaral waaye giñ naa ci sëñ tubaa buñ ci ñaawoo ak yi giñ naa ci sëñ tubaa buñ ci reyee nit yàq ci seenu xaalis indi ci fitna ci réew mi bu la cinq février bu jotee ñoom ñëpp kenn dootu dugg ci pale bi. dañuy daanu pale bi nag ni ma koy faral di waxe rek Macky Sall ku ko tegoon fii ne ko sëñ Macky mu ne la waaw nga ne ko euh, sa kër gii ci meer ku ko bëggoon a nangu nooy def danaa la damay reyanteeg yow te am na ci droit lu tax nga ne ko ba ngay wut kër gi maanaam su ma la posé woon question ne la kër ma këru ma këru Macky Sall gii ci Mermoz lu ca Macky Sall def xam naa boo ko laajoon Macky dana la la maa jëndub terrain. maa wut maçon maa jënd suuf ak ciment ak béton maa fay ñu defaral ma plan bi ma neex ma tabax ko dëkk fi kon loolu kenn mënu ko nangoo ci man dañ ko koy nangul waaye boo ko wamatoon ba yegg buntu pale ne ko pale bii bi ñu koy tabax yow loo ci def baa loo ci sa baay def du wax dara de xam naa ne pale bi bañ koy tabax yëgu ko baa judduwut defu ci ciment tànnatu plan defu ci dara day romb dong pale bi ba mu yàgg sénégalais yi dajaloo ba mu yàgg ñu ne ko sëñ Macky kaay dugg defaral ñu lii suñ toogaatee ba yàgg ñu ne ko sëñ Macky kaay génn mu du génn nag fitna la fi bëgg andi dégg nga parce que nag Mermoz moom moo moom kër ga moo jënd plan bi moo ko tabax waaye pale bii moom bañ koy tabax Macky defu ci dara baayam defu ci dara maamam defu ci dara du alalam moomu ko dégg nga polom yee bi romb buntu pale nag ñu ne ko ah ab robinet day xel ci biir mu ne mën naa koo defar dugg di defar di sëgg ba mu sëgg ca plombier ba ca ca robinet ba di ko defar wala mu gas teewoo ba di ko sakkaat ba ba ndox mi di génn dégg nga plombier boobu moom Macky Sall bokkul bokkul liggéey ci biir pare bi temps yi ñu fay defa bokkul rek plombier bi ndox mi ko fi bàyyi Macky Sall signé kayit ko fa bàyyi bu mu plombier bi bu ndox mi matee nag mu ne àll leen ma fi mu nekk ma dëkk fi fitna ay yata ko fay génne dégg nga Macky nag bu signé këyitam ba yàgg ñu signal ko kayit bi ko fii génn na ko demal mu naan fii daa neex du ma dem ay yat il faut ñu delloo si xel yi palais bi du kër bàyyi kenn fii kenn ba ñuy tabax palais bi sa bàyyi joxe wut sima sa bàyyi joxe wut fer sa bàyyi tànnut bi kenn ku nekk sa jekk nga ci biir pale bi nax neex na te rëy na te yaatu na dégg nga waaye nag na fi Senghor a fi newoon dem Abdou Diouf ne fi dem Ablaye Wade ne fi dem maki dafiy ne te day dem waaw loolu nag na leer. waaw. waaw Cheikh Balla kii laa la doon laaj dañuy gis mbirum mbindu yi euh, nga xam bu doon am day diire ay weer ñu koy publicité ci télé bi mel na kuy baab nit ki pour mu bindu ci du ma fàtte sax ak euh, 2007 la ko moom ñoom Kouthia ñoo doon def publicité ak léegi bii gisuñu publicité bu fës. nit ñi tamit am volonté dem di bindu ci mais bindu ji bindu bindu ji lii fës day mel na ñuy bindu ji Sonko lan àndal ba tax ay jafe-jafe am ci surtout bitim réew Milan fu ne nga gis ne jafe-jafe ngi fi te foofu tamit war ngaa wax ak neutre yi xam nga neutre yi ñoo doon wax ma yàq du ma def dara dañ bàyyi ba élection ma woote léegi nag ñi ngi bindu jafe-jafe yu ne nga ci am diir bi mi ngi soog a bu gàtt nii mi ngi soog am ba pare wëlbati ko amee jafe-jafe nee na sax ay te man na ci am yoo xam ne tam doo jotaat sa mbir loolu lan nga waaw xam nga mbindu mi moom damay soññiwaat sénégalais yi ñu dem bindu loolu laay njëkk a def moo yëgoon sax bi may def sama première déclaration bi ma dugalaale ko ci waaye comme tudd nga ko sax baax na ci parce que dafa am solo bu ñu wootee xeex nga jóg xeex ak nekk ci commentaire yi Facebook yi ak publier bi lépp baax na waaye li ëpp solo te wóor mooy bu ngoonuk la 25 dañuy wàññi xob. fekkee nag jàpp nga ne sénégalais bu war a tànnal réew mi njiit lu baax nga li ngay njëkk a war a def mooy dem bindu ci loolu nag xam naa ne Gàmbi to weesu nañ lii Gàmbi gii laa wax nag dem ba Milan wala nga nekk France walla nga nekk Louga wala feneen xëy suba ne ab sénégalais nga bu majeur am sab entreprise dégg nga di gagné di liggéeyal réew mi am fi jabar ak doom ñu ne la tey looy rang nga naan pour nekk électeur defe naa ne loolu lu ñàkk fayda la mosoo gis ñu rang ñu naan loo fi def ñu naan pour nekk sénégalais waaw hmm? ah, sénégalais bi da judd rek nekk ko pourtant boo nekk boo juddoo nekk sénégalais kay dangay ngay mësër comme ni nga ñàkk a pour nekk sénégalais pourtant mënoon ngaa ñàkk a rangé noonu pour nekk kuy kuy wate parce que choix bi laajuñu nga da ngay bindoo doo bindu mais choix bi yow sénégalais nga war ngaa mën a choisir Sénégal njiit donc kon bépp nit bu majeur waroon nañ laa jox sa carte électeur ak sa carte d'identité suñ demee ba élection jot nag publicité bi ngay wax naan dem leen bindu ci xam nga lan la ñu waroon wax publicité bi mooy dem leen wate ji ku am choix pour wate nga dem wate ji ku amul choix pour bëggoo wate nga toog sa kër mais damay dem jóg pour teel a yeewu pour rang pour nekk ab électeur loolu moom wax dëgg yàlla kenn xamul lu mu doon ñun mënoon nañ di am carte d'identité rek amaale électeur bi benn yoon mu jeex nga xam ne ni nombre sénégalais yi toll noonu la nombre électeurs yi toll su élection jotee ñu mobiliser nit ñi ku bëgg a wate nga dem wate ku bëggut a wate nga toog sa kër mais bëgg a wate ba noppi di ponkalum nit mu am entreprise dem di bëgg a wate ñu ne yow mënoo wate defe naa ne lu lu lu ñaaw la bi ci desit mooy bokk ci bokk cim réew ñu ne la weer wii rek boo ci gaawantuwut bindu ci même boo xamoon ne maanaam mënatoo tànnal sa réew dara na xam ne benn vingt quatre jours xaw ma vingt cinq jours lañ la may voilà te am na ñoo xam ne tey ña nga Europe fa la li mbindu ma fekk bala ñu ñëw mbindu mi jeex te buñ bindoo Europe wate bi fii la leen di fekk man dafa compliqué compliqué boobu yépp nag liñ ci jublu mooy benn technique mooy li ëpp ci seeni nit ñoom fexe nañ ba lijjanti leen ba am carte sénégalais yi ñu xañ leen trois wu tànn duñ mën a accès ci fi ñuy tànne su élection jotee ñu ne sénégalais yi ñooy tànn fekk sénégalais yi tànn ñu seen i nit ay tànn dégg parce que dañoo jël benn groupe bu ndaw jël kàddu gi jox leen bi ñu ne élection yi nag ñëw na sénégalais yi nag ñooy xool kan mooy jiite fekk déedéet benn groupe bu ndaw lañ jël defar leen pour wax ndoolu comme fédération football bii bu ñu tànn njiit li ni muy demee xeet boobu la rek benn lobby la boo xam ne ñoo bëgg jël toog ci kaw nit nit ñi loolu nag ndaw ñi ñoo ko mën a xeexal seen bopp mooy lobby bi buñ ko wàññee ba ne un million de carte la dañ koy jafeel ba beneen carte du am comprendre nga nga xam ne kenn dootu mën a watee su wate jotee ñun un million bii ñun déggoon nañ ci suñu biir ñuy falante ci suñu biir léegi nag li koy dindi mooy beneen un million boo xam ne kenn kenn kenn mënu leen a contrôler nañ ñëw bindu suñu bis baa buñ ñëwee ñoom ñu complot woon bëgg a wate fekk fi yeneen million ngi nit yu complot wut loolu moo mën a yàq seen jeu kon xale yi nañ dem génn bindu bindu massivement gis naa ñi ngi bindu mais tuut xeeb naa nañ génn génn gu vague bu metti taxaw ci buntu bindu yi jafe-jafe yi mënu ce ñàkk mais li am solo te am solo rek mooy nañ taxaw rek bindu voilà suñ bindoo ba jot suñ carte rek bu booba bu bëccëgu élection yi jotee gars yi danañ xam ne Basi Góor a koy bañ. mooy mmh.